de tous les patriotes de l'Espagne, au nom de tous les patriotes de la diaspora, au nom de la population sénégalaise vous nous disons que nous apprécions positivement votre engagement et le travail que vous avez fait pour le Sénégal. Sénégal et exclusivement pour l'intérêt du peuple sénégalais et de la patrie. Que nous défendons. Nous sommes tous fils du Sénégal. Aujourd'hui, c'est un modèle parmi tant d'autres d'humilité, d'engagement, d'action. Malgré les contraintes, il ne va jamais changer. kon gars yi man ku ma bëggal di leen remercier bëggoon nag dana exprimer wu en wolof le frère bi dana exprimer wu en wolof li tax muy exprimer wu pour ñi nga xam ne xëy na da leen bëgg mu wax français wala leneen dafa war lancer un message à l'endroit du peuple sénégalais notre peuple notre langue nationale c'est le wolof kon ñu ngi leen di ñaan compréhension ci kàddu et sans plus tarder on va passer la parole à l'honorable député le président Guy Marius président Ousmane Sonko bu nekkoon fii tey benn baat la ñuy wax focus. focus mooy focus mooy fal président Ousmane Sonko cinquième président du Sénégal donc donc donc donc yi li ma ci bëgg a teg mooy. il faut que nous continuer sensibilisation bi fii ci espagnol yi fële ca français yi fële ca américain yi ak mboolem réew bu nekk ci àddina bi ndax kat li am mooy Macky Sall dëgg la mu ngi ñuy rey mu ngi ñuy boom mu ngi ñuy tëj waaye dafa tubaab bi ay complice la dafa melni ni tubaab ay complice lañu li wone wane ne tubaab ay complice lañu que lolu duma rek xaar nek Sénégal pour wax ko fi la kay waxee ci réewu tubaab bi li tax ñu naan ay complice lañu moy Alexis Alexei Navalny opposant russe jamono yële passé fi ngeen dégg ñu ne dañ ko condamné 19 ans de prison. France def na communiqué pour ñaawlu loolu Union européenne def na communiqué pour ñaaw ñaawlu loolu États-Unis def na communiqué pour ñaawlu loolu Organisation des Nations Unies def na communiqué pour ñaawlu loolu ak ñoom seen ñoom ñëpp tubaab yi def nañ communiqué pour ñaawlu loolu waaye bu ñu tojee vitre Ousmane Sonko bu ñu complowee président Ousmane Sonko

complice. France complice. États-Unis complice. États-Unis complice. Espagne complice. Espagne complice. Belgique complice. Belgique complice. Italie complice. Italie complice. ONU complice. ONU complice. Hollande complice. Hollande complice. CDAO complice. CDAO complice. Union africaine complice. Union africaine complice. IRA complice. il complice la complice. la complice. CDA complice. Sénégal nous ne rey leen ñoom nous ne coup d'état Niger zéro mort que nous ñoom itam ñu doutes les parents. Comme nous, sénégalais nous, Africains, il faut que nous interpellions opinion publique wala Ousmane Sonko ay victime de racisme Alexis Navalny comme tubaab la buñ ko nootee ñu wax waaye Ousmane Sonko comme nit ku ñuul la buñ ko nootee ñu ne pat xanaa loolu la. il faut toucher là où ça fait mal. Il faut demander aux Européens, est-ce qu'ils sont racistes moo tax ci Alexis Navani, te bu et Ousmane Sonko des choses beaucoup plus graves mais les pat donc c'est à nous de les interpeller n'ayons pas peur de les interpeller n'ayons pas peur de les critiquer n'ayons pas peur de sensibiliser leur opinion publique nous nag ñun xaaruñu pour définir li la preuve dañu tubaab pour def li dama bëgg waa Sénégal ñii di def live ñii di def live en direct won waa Sénégal que jamono ji y a des manifestations. Bon, comme tu places vite. C'est demain Sénégal. Nous devons nous déposer. Nous, nous sommes ces militants, nous avons déposé pour faire une manifestation. Il y a des manifestations en place. xanaa tubaab yi ñoo ñu gën a muus xanaa tubaab yi ñoo ñu gën a xel xanaa tubaab yi ñoo ñu gën a indi fi diine ñaari manifestation moo am tubaab bi dama bëgg ngeen won ko Sénégal yi ngeen won ko africain yi ñun ñu ngi manifester fii tubaab yaa ngi manifester fële. Je veux ngeen wan droits africains, sénégalais que nous nous manifester devant le siège du gouvernement catalan Parce que nous nekk nii place de Nous manifester devant le siège du gouvernement catalan Nous nous manifestons devant la mairie de Barcelone Nous nous réewu manifester devant le siège du gouvernement catalan nous pour Pour nous vous que tout, nous nous manifester Nous sommes quand nous tout, nous nous manifester Nous nous nous tout, nous manifester on va tourner la page.

yéen la ñuy félicité waaye yéen la ñuy encouragé cinq mois yii di ñëw dina métti waaye difficile n'est pas patriote cinq mois yii di ñëw dina métti waaye ñun wóolu nañ

Gracias.